affaire politique moom euh, xajul fii xajul fii mais en tout cas euh, man dinaa la ci defal benn lecture bu ndaw mooy dama yaakaar ne erreur la buñ defati mooy euh, boo xoolee Dakar mooy Médina ak Grand Dakar mooy rare. rare euh, communes yi nga xamante ne yeewi askan wi gañe wuñ ko suñu débouché Bamba Fall yóbbu ko rek mooy léegi yaatal nañ la yeewi askan wi parce que Thiès boo xoolee élection yi jàll euh, opposition bi maanaam euh, nu mu tuddati na ci loxol yeewi askan wi te ab ka fa nekkoon maire bu fa nekkoon transiment parcelle dem na ci loxo yeewi askan wi maire ba fa nekkoon transiment la ku mel ne Padoa dem na ci loxo askan dem na ci loxo yeewi askan wi maire ba fa nekkoon transiment la mën nga ko topp noonu HLM mi ngi ci loxol euh, Yewwi Askan Wi maire ba fa nekkoon transiment la su logique boobu boo ko toppee da ngay xamante ne demuk Bamba Fall gi maanaam nekkul lu dul jël Médina dugal ko ci loxo opposant yi même moom bu fekkoon dafa bëgg a jàppale Macky Sall mënoon na ko def mais pas mu dem rallier dem ci Macky Sall parce que tey décision bi mu jël nii bu ko jëloon une semaine avant élection yi du nekk maire Médina voilà. dañoo ñëw ci tuddum suñu euh, xarit suñu naataangoo ci wàllu liggéey. suñu mbokkum taalibe itam aussi di ku ñëpp xam muy Serigne Ablaye Diop xaas ndax euh, yaakaar naa moom turam daj na àdduna bi yëpp waxuma Sénégal waaye àdduna bi yëpp di nit koo xam ne nag euh, yaakaar naa fii ñi fi teew ñëpp mën naa wax ne dañ koy fay si bor parce que ku nekk rek am na lu baax lum la mës a defal am na lu baax lum la mës a defal te nag euh, as gor as gor moom buñ ko teralee sëñ Sidi Moxtaar sama sëriñ moo daan wax naan kuy xeeb teraanga rek amoo awoo yoonu fay ko te xaas yàlla daf ñoo boole ñu bokk nekk ci dëkk bi bokk ci lu ñuy yëngut mën naa am sax moom mu féete mag waaye nag mu jox ma respect boo xamante ne nii mënu du ma wax ne jox ko kenn waaye man xam naa ne respecté na ma bu baax a baax a baax loolu nag bokk na ci li tax moom man ma bàyyi li may def lépp ñëw parce que bu dul dara rek man benn yoon sama yaay gaañu na ko mu jóge dakaar gi ñëw ca denc ba ñëw ànd ak man naqar wi yëpp ma ñaanoon nag yàlla yàlla may ko jàmm ba ma fay ko bis boobu moom loolu bokk na ci li tax ma ñëw euh, bokk na ci tamit bokk giñ bokk liggéey bi mu nekk nit koo xamante ne mën naa wax ne fu ci bëggoon a egg rek egg na ko fi parce tey euh, amul amul amul amul kenn koo xam ne tey ci côté marabu gi ñuy def doo tudd boo nee benn ñaar faaw turam bu dul benn dina nekk ñaar te ay yooni yooni yoon bu donte nag su ñu gisante bariwul waaye su amee lu ma soxla ci moom muy xam nit ku mu jàppanteel wala wala wala lu ma bëgg mu mu jëflante ko ak nit wala dara war a kuy kuy am na ñu nga xam ne dañuy am ay jàng nañ ma ko waxal xaas wala dara su jógee ci man ma ma yónnee ndaw wala ma wax nit ma téléphoné ko wala dara su ko yëgee lu mu mën da ko ciy def ba ma xam ne day def kii selon ko ndax man voilà man man man am na ñu ma wax ñu dim mu dimbali leen te xamu leen mais man la xam ndax day am ñu nga xam ne dañuy ñëw ci man ne dañu soxla xaas ci nangam waxal ma ko nangam ma wax ko ko su boobaa bu dee lu ñuy laaj la day joxe ba joxe lu ko lu ëpp te loolu lépp euh, maanaam nite la ak mën a joxe cër waaw yoonu sëñ tubaab yi ñu bokk nekk te ñun lu dul sëñ Tuubaa itam ñoruñu gis ngeen ko mu bokk ci raar taalibe yi nga xam ne nit waxtaan na ci sëñ Tuubaa mu yëkkati oto jox ko ko te loolu tamit moom la dëkkee ak ak ak même bu dul ci télé bi même bu dul oto yi ngeen dégg fii ñu fi nekk ñëpp xaaj bi ay jànkatu xasaayit lañ xaaj bi ay tàggkatu yonant bi lañ ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sol nga mbubbam ñii lekk nañ teraangaab ñii war nañ otoom ku mel noonu nag bu nekkee ci réew su amee bànneex ñëpp ay jóg yàlla tere bu amoon naqar tamit ñëpp ay jóg bànneex boobu mu am tey nag muy soxnaam soosu tamit muy soxna sumbulu mu koy tuddal doom tey loolu mooñu ñu waaw mu tudde ko soxna jaariyatullahi mariama busa euh, ñi koy ñaanal ma gudd fan te wér te di ko ñaanal nag ci digganteem ak soxnaam si muy sumbulu euh, yàlla yàlla yàlla sàmm sàmmu seen diggante bañ dikkaat fii toogaat fii di may soxna jaaram yi muy sëyi ñu ngi koy ñaan ci barke yonent bi salaay salaam yàlla may ñu loolu. mais waaw xam nga ñun social moom dañ cee juddu ndax ñun ci suñu bopp ay cas social lañ waaw <laughs> te <laughs> moo tax bu ñun suñu bopp cas social lañ waaw social boobu nag loolu moo tax ñun xam nañ réew mi ni mu tëdde euh, ñoo nit ñi ñoo ñoo bokk ñooy xëyandoo ñooy gontandoo problème bu am dañ koy yëg kuñ ca tane dañ lay dimbali. yàlla xam na ne léeg-léeg mu am ndimbali yoo xam ne danaa xam ne lii nii mën naa bëgg naa ko def mais mënuma ko ma yëkkati ma am joxe euh, jël numéro sëñ Moustapha njaay alkarim woo ko ne ko diw mi dafa am problème nangam dimbali ko jël numéro sëñ Ablaye Diop xaas téléphonel ko sama bopp ay yoon na ko dimbalil diw mi dafa soxla nangam te su ma ko ko waxee immédiatement day daal di yónni ndaw wala mu def ci transfert yooyu argent yi mu ñëw man ak moom liñ gisante matul ñaari yoon ñett yoon mais mën naa wax ne li ñu li ñu séq dafa mel ne que ne ñoo ñoo ñoo ñoo juddoondoo te loolu lépp xam ko xam euh, xam xam ko ci lu baax te ñun ay murit lañ dañ ñoo yar ci euh, bu ñu amee dañuy bokk waaw loolu moom noonu lañu noonu la ñu sëñ Tuubaa yaree